taalibe yu bare bare bare bare di man di ko tawat mooy senegal li fi xew ku la dàqal tubaab rek ñu defee new yow yaa yaa yaa yaa jiitu moom daal fekk ñe ñe ñe ñu teg seen baat yi ñoo di woo ko ba mu ndànk wax tubaab yu bari rek te Sénégal dëgguñu tubaab téeméer boo fa gis Sénégal juróom-ñaar fukk baag juróom-ñett xamuñu tubaab dara soo leen waxi tubaab ay décret yooyu ay loi ay ay ay constitution constitution bi man mii ak ñu bëree bare bëri xam ñu luy constitution dañ ko dégg noonu rek ña ko nas nag bu la neexee lu lañ ko neex ñu dindi ko lu lañ ci naqari ñu dindi ko agit ñu ñi ngi ñaa mooy laaj loo ndax président am na ku nekk président bi ci réew am nga loo sañ am sañ nga lépp damaa yaakaar ne am nga loo sañ waaye am nga loo sañoo ko boo sañee lépp nag nañ ma ko wax ñi may ñi may tontu te xam nañ ma tontu boo fekkee sañ nga lépp nañ ne wax sañ nga lépp waaye sañ lépp di dafa naan yàlla dong ko fi sañ mi bind nag indi na fi dinu fi jaamuloo boppam jaamu ko war na jaamu gi nag mën naa mën naa lan mën nañ ko ja gis lu ne mën nañ ko ja gis nag ndax nitu yàlla kat yanub yàlla lu mu rëy rëy rëy bu ko sëggee yanu ko mu jóg waaye ñaari kiloy yu àddina nitu yàlla attunu ko boo gisee nit yàlla sonn ci àddina àddina nit àddina yi àndal seeni i bokk waaye ngi seen leneen te ñu bëgg àddina ji ñor ñor leen ko looloo doy waar moo tax sëñ Tuubaa ne moo tax sëñ Tuubaa nee na bi may laaj yàlla sama boroom li ma gën a bëgg boole mu ci woon la ma gën a bañ waaye yàlla moo doy mu noonu doy waar boo ko laajee li nga gën a bëgg da jël la nga gën a bañ dugal ca ne la booleel yóbbu maa nga boole ba fi ma jël ma jël la ma doon laaj sama boroom waaye ay di ay ay gars yi ne diib topp ci man mel ni mën nañ mën nañ soxla soxla wuñ ma àddina ji ànd ak man ci li ma yor rek lañu ñu bëgg jot ba ba wàññi ko ma ma yàkkamte leen ko jox bañ wàññi ko kon sëñ Tuubaa yàlla nga koy dimbale kon kon yàlla nañu dimbale waaye nag nefi fi nag bëgg tubaab lool nga xam ne balaa kenn balaa kenn da nga yëg kuy wax mu ne man sax xamu nu ñu ko waxee ci wolof loolu bés laa dégg yow wolof nga ay wolof ngay waxal wax lan loolu wolof leer rek wolof yi leer rek ku ma ko wax man mii dinaa la tontu constitution boobu de buñ ma ko bindal tegal ma ko lu ca tege ci yoon danaa ko nangu te dinaa nangu nag te su ma ko nangoo yaakaar ñu bari danañ ko nangu waaye tegu ci yoon daan lii nangu ma ndax lu luy liggéeyanti mbirum kenn ak luy liggéeyanti mbirum ñëpp bokkut luy liggéeyanti mbirum ñëpp kenn du ko laal bala ñu caa def dara waaye liñ bind ñun xamuñu ko. téeméer bu nek Sénégal juróom-ñaar fuk baak juróom-ñaar lañuy wax ci constitution bi xamuñ ko dara dañuy lakki tubaab rek dagal karawat lu sangam loi sangam article sangam lolu ñun xamuñ lolu lolu buñ ko déggé ñun koy wax ci wala fi leer nañ di diko léral bam mu nañ lu leer nañ ci ñun am nañ ci kaddu gog wax tontu ca ak wax ca waye lo xamni ne xamuñ ca dara nak wax deug yalla ku ñu ci bëgg wax lo du sotti rawatina nak nga dagal sa karawat bam dang nga nga nga doo leen waxit wax ni tuwab tuwab nak dégg ko amu ci ñu jariñ ñak ko degg amu ci ñu jariñ nun lu baxal sun rew mi lu koy deexal lu tax ñu deggo lu tax ñu jibo lolu soxla nañ ko ñun ñep té bolem afriki afrik gi ñu mauritanie guinée Niger senegal Mali soine boobu yëpp benn soine la soine la soine barab la waxan bi ñoom ñëpp ñoo bokk ku fi amul fii bàyyi am nga fee nijaay mbaa maam mbaa rakk mbaa bàjjen mbaa dara te lislaam gin gëm noo ko bokk gëm kon ay terroriste néew fi ay ay ay ay amu fi ñun ay jullit dañu xanaa kay tubaab yee jël ay suñu biir ñoo xam ne ñi xamuñu di leen jox xaalis bu baree baree bari jox leen ay fetal ñuy xeex ak noonu waaye bokk araam amu fi ndax euh, xamu bokk araam ndax bokk bokk bokk bokk kii kii li xew ci Sénégal lépp ñun ñi xam nañ ko Sénégal gii ñun ñii ñëpp kenn ku ne lu fi am tey dëgg xam nañ ko lu fi am te du dëgg xam nañ ko tey nag maandu ak jub yàlla na ko yàlla def ci ñun ñëpp yàlla na ko yàlla def suñu naa ba def ko ci ñun ñi nga xam ñaa ci àll ba di bay ak sàmm waaye jub ko su jub jeexee lépp jeex def lu la neex mel nu la neex dem fu la neex lekk lu la neex dafa dafa ngeen da nga dajul ndax Sëñ Tuubaa neen déedéet man saa demagun ca demagun a jërakat ñoo ngi fii njas mi mu tàng jër naqare lool mett lool doy waar lool kon buñ xoolut suñu ngor suñu jub sunu jom sunu ngëm-ngëm sunum réew kon loolu day xawalati manees naa manees nit kët doo ko fi waxee day manees na ko wax nit doo ko fi waxee waaye doo ko fi xamee mënta nekk